Mitte TV, Mitte TV. Mitte TV, Mitte TV. waa Kër Massar benn ite lañu war a am jëlee fi ndox bi ni mu gën a gaawee nañu joxante loxo boole suñu doole ñu ngi dund ay waxtu yu metti dara waralu ko lu dul taw bi am doole bi ñu jànkonteel fan yi ñu jóge président de la république son excellence Macky Sall mobilisé na gouvernement bi yëpp pour ñu indi ndimbal population bi waaye nag ñun waa Kër Massar war ñu des ginnaaw dañoo war a jóg joxante loxo dimbalante suñu biir pour jëlee fi ndox bi ni mu gaawee ki nekk ci ndox mi ak ki nekkul ci ndox mi. ñépp dañoo war a suul ci xeer benn itte lañu am jëlee fi ndox bi ni mu gën a gaawee maa ngi woo bépp masarwaar ak bépp masarwaar ñu xeex bënn ñu ngi ciy woo jeunes ñu ngi fi woo jigéen ñi ñu ngi fi woo suñuy kilifa ñu fi woo góor ñi

moto pompe yooyu ñu ngi ñëw yokk ci li nga xamante ne moom lañu tegoon ci loxo délégué de quartier yi ñu ciy nekk di def liggéey lu am solo ku ci nekk fu sa doole toll na nga jóg taxaw jàppale population Kër Massar ci xeex mbënn bi ndax njaboot yi mën a dellu seen kër yi mën a nekk ci jàmm ndax nag ñun Kër Massar benn xalaat lañu war a am lu laal kenn rek laal na bépp Massar waa ak bépp Massar waa kon nag dañu war joxante loxo xeex mbënd bi maa ngi leen gërëm di leen sant. TV Mite TV. TV. tv